ma wax ak yàlla ne ko yàlla maa ngi dem di bëri ji su ma amaatee ndam du yoon nag yow laa koy. tuddee bu dee góor ak bu dee jigéen ci wéram la ne ma dem ak Adama Diouf yàlla dogal nu niil kenn daanul. bii paase waaw kenn daanul ma xam ne yàlla bi recours bi gën na ñu kase verdict bi ma sant yàlla waaw ñu bëri la huit foofu waaw moo dëgër bopp. waaw raqib ak eh. xatit ñoo ma tiim. barke yonent yàlla Muhammad daf maa woo ma ne ko combat ba leerul bul bëri ji. non balaa boobu. balaa boobu man ak yow dama ñëw ci yow. pare gu ma da xaaral waaw ñëw de Bamba Sylla ci yàlla nag nga jóge ci Adama Diouf ma jóge ci Adama Diouf ma bëre la huit mhm. bi ma bëre la sama soxna am doom le dix huit mu am doom ci suurub gàmmu nekk suuru altine te xot yàlla ne ko bu ma amee doom yow lay tudd yàlla bay ba suurub gàmmu yàlla may ma doom bu góor suuru altine ma xam ne yàlla dafa ma ne tur bi tudde ko Seydina moom salasam moo ko moom kon yàlla sunu borom man sama xarit la maa ngi koy santi ko gërëm parce que lii lii am tey moo ma moo bay ba suurub gàmmu mu xëy ne sama jabar amal doom tey doom ju góor ngay am. ba mu amee doom Lamine laa jëkka woo ne ko Lamine yàlla nag may na ma doom mais yàlla ni mu waxee ak man tey dina ma naa ko tuddee Seydina Mohamed. sallallahu taala sallam moo tax ma ne tur wi kenn du ko moom Seydina Mohamed rasulullah laa ko tudde parce que yàlla bu bu ma ko waxoon ne ko dama lay su ma amee doom yow lay tudd mu bay ba gàmmu mu may ma doom bu góor. misaal la man ne ma tudde ko yoneen bi di sama xarit kon yàlla sama xarit la buur bilaay walaay taala xew bi bi ma sama doom bi bi mu ñëwee ba léegi xew bi li ma ci def mësuma koo def ci sama ngente barke Mohamed miyaa yu bëree baree bëri Biraa Nduur dem gaa yi may wóolu Biraa Nduur dem la ma wóolu ne ma am xam nga du ma lim ñu bëri ay ñu bare bëri Basirou Ka ñëwul mais ngoon dina ñëw Gaston Mbeng aussi mu ngi ñëw ne ma booy xewle kenn du fi jekk bu bu ngoonee dinaa fi ñëw Pape Diouf aussi mu ngi ñëw wax na ma ko dem Mouhamed Ndaw Tyson ma woo ko dem ma ne ko Tyson damay ngente moom moom itam ku am ba ba baatin la mu ne ma santal yàlla du Seydina Mouhamed man li gars yi di wax wuli di wax ay ngente ngente man dama lay ñaanal yaag sa doom ak yaayam yàlla may leen gudd fën ak wér loolu loolu moom solo Tyson ne ma nag suba jibi bate mooy ngente mais soo ma fa jógee dinaa fa jaar si comprendre di di sant ñëpp ñëpp yéen aussi vraiment journalistes si dama leen di gërëm yow buur Madoune Diouf Serigne buur géwél mii mbay joob Lamine moom benn la ñu wax ndey mbay masila mii yàlla moo nu boole masila mii yàlla moo nu boole bi ma amee combat big pato mosuma ko xam combat Modou Lo ak bala gay bi ñu signé contrat euh, teeru bi ah non monument Renaissance lañ ñëw Aziz Ndiaye ne ma wulli demal jëlee ma borom bekk waaw ma dem maa ko nekk kawuyu Aziz mu ñëw yeg bi muy ñibbi ma xam ne kii borom po parce que damaa dégg Aziz Ndiaye baay Baye di deewal naa ay borom bee kii ñëw na di reetaan ma xam ne ñu ñi seen xel dal na ci combat bi man itam defuma bi may ñibbi ma laaj ko numéro am jël ko waaw ma ne ko ma gis ma gis Sa Thiès ni ma ko ombee di ko yóbbu. ma xam ne kii ponk la ma ne ko sëñ bi doomu sa numéro. boo aussi yàlla ma combat bi pato sëñ yu bëree bëree bëri ñu mënu ànd ak man stade ñu bëri moo ne ma waat yàlla dem di nga am ndam maa lay yóbbu barke sëñ Bamba koo jox ma ko fukki dërëm fukk paasam moo ko paasal boppam ñëw stade mu ne ma di ko duma di ko daal ma ñëw. madul dama waxoon door police ba mu nuyu te dara fekku la ci li neexul yaa ànd ak man ma jóge ci ànd ak am liiru jaan Gambie mu ne ma wuli combat bi li ma ci gis leerul gisuma sa ndam may tappale naan jamay kee bëréewu la muy xam dara du ma jamay kee ku ne ko ma ne ko Lamine du ma bëree ma see ma wuli gisuma sa ndam ci combat bii ma ko mais Massi li li li yaa mën mu ne ma mais man li ma gis laa wax sa ndam laa gisul may tappale naan bëréwu ma bëréwu ma ma dem bo ba mu ñaari fon ma woo liiru ne ko est-ce que boobu ñu parce que boobu ñi mee tuba ko liiru aussi ñi ma parce que yaakaar ne maa mën mu ne ma mu ne mais nan combine ma ne ko xam nga li kuy combine mooy du ma dikkalam de parce que dama naan gamee ki damaa feebar mu ne ma voilà buy dikk booy bi dafa sopp <laughs> buy dikk. yéen jaay ngeen doon teg ñu def pala <laughs> ñu liiru jaan ba samedi bi muy dem stade samedi bi muy dem Gambie billaay woo na ma ne ma mbër maa ngi dem waaye bu dig de ma ne ko noonu du ma ne na waxee daal mais jamay kenn ndeysaan amoon nu ma koy def ku ne mu woo ko karaam mbooj woo siix sama mag ba da jon ku ne mu woo ko man ci guddi samedi ci guddi laa aussi mu dem ci ay sëñ xam naa ay sëñ ñoom xam nga daal daañu may galaaj samedi si guddi mënuma mënuma nelaw ma ne garaab naa dem rek billaay wallaay dimanche laa xëyee fii dem Gambie maa ngi fekk ay maa ngi fekk ay laa fa egg dem bëre billaay wallaay liiru jaan bi ma gisee stade daa tiit parce que dina kii la moo tax mu ñëw moom moom itam muy muy muy magatam jaan ne ma ne jamay ke ñëw naa mu xam ne day mu ne jamaykee fekk fa ma du duma bëre mu daw ne jamaykee fekk fa du ma bëre dem taw ca ginnaaw mbaal ya gën isaak bi ne bërewu na ma fi sama xaay pare parce que kii tri <laughs> di wax ne Massi la nit ku yàlla may maag Adama Diouf bii barke Mouhamed comment bu jëkk ba ne na ma dafa nañ ma ma ñëw stade tabaski Tiwaawoon la tabaskee ci suuru combat bi la ma woon maa ñu reefal ànd ak yow ay 11h laa ko woon lam ci amatul mais bii bi bi ko jabaatee ma ne ko xoolal mu ne ma wax dëggu see la wuli gisuma sa ndam gisuma sa ndam. billaahi gisuma ndaam ma ne ko ah masi la wax dëggu see la làmb ji foog ma bëree ko nag parce que mënuñu ma 2 ne dafa bërewul man aussi ma taxaw ne du ma bëre loolu dara jarlu ko. même même bu may dee sax masi la naa dem bëre rek mu wàcc ma di ko gërëm di ko sant di gërëm ñëpp xew wi ñuy ñëw ñëpp maa ngi di gërëm même ku ñëwul maa ngi gërëm parce que ñoom ñëpp a ngi may wone ma na ñëw ngoon taxaw yi jeexagul ngoon gi ngoon gi jàkkaarloo bi day am ak lépp ba